wala boog dañuy dajale joxe parce que ñun loolu lañ xam association bi daanaka benn lañ imaam yëpp benn lañ dañuy yëkkandoo di tegandoo ñu ne waaw léegi dañu xool rek nañu yóbbaale ñëpp waaye tam du tee ku nekk tam boo amee dara boo ko yónnee orange mu ne wala nga indi ko day gën a dund rek. démb rek yow day gën a alal def ci. waaw loolu nag dafa am solo parce que l'islam loolu la jàngale. Ah, lu waay am rek joxe ko ba ñu xeeb dara. parce que lu ñuy xeeb dañuy jékki mooy jékki-jékki bari. les petits ruisseaux devenir les grandes rivières. dëgg la te dëgg-dëgg montagnes ci montagne nga gis yëpp ci jémbaraay la lañuy bayé ko. bàyyeekoo. dëgg la ndank ndànk rek petit à petit l'oiseau fait son nid mooy ñun buñu xép dara. dëgg-dëgg buñ ko dajalé damay gis ñu bari ñu nan ñu ngi koy défal monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr. dëgg la parce que li Yalla subhanahu wa taala nga ko jox. dëgg la donte la Abdoulaye Diouf Sarr monsieur le ministre way la. Ndax té ci yof gi la dëkk. Té imam ratib loolu la wax sax mun nañu dëgg-dëgg ñun ñëpp nañ bayyi xel ne ministre bi fii la dëkk bu fekkee dañu wax ne bu kenn julli ci jàkk yi nañ sóoraale itam lu bari feebar am na waaye itam ki nga xamante ne tey loolu ci loosam la ngàll ci dëkk bi la dëkk waaw allo allo salaamaaleykum wa rahmatullah wa salaam wa rahmatullah alaaj jege is waaw ñu ngi lay ziar kooku mën la seeni gay euh, yaa imaam imaam seeni ziar bu baax ñu ngi lay ziar bu baax yaa imaam di leen bëggee ak eh, ak maam Ibrahima Baas ci taxawaay bi eh, waaw vraiment taxawal na imaam yëpp eh. ñu ngi rafetlu nag initiative bi ngeen jël yéen waa ngeen def nii jëfi e, jullit la uh-huh. jëfi nite la jëfu ay mbokk la uh-huh. jëfu tam ay dëkkandoo la uh-huh. kon bu mu ci doon rek aw yiwu yàlla wu baree ci nekk ndeysaan waaw lu ci waaye def ndëkk bu mu ko xeeb bu mu ko yéem dëgg la waaw téléthon xam naa méthode bi Uh-huh. dafa nekk bu gën moderne rek uh-huh. waaye teleton yàgg naa am ci dëkk bi ci yoof dëgg la lu ñuy wax am xamba téléthon la uh-huh. euh, lu ñuy wax santaane ab tool wala tabax kër daanaka téléthon lépp social la dëgg la waaw bu fekkee ndek man mi am lu néew ak yow moomu am li bari ñu dajale ko boole ko waat séddale ko ñëpp. loolu ñëpp ngeen associé ci tiyaabu ji. dëgg la. waaw ah, di ñaan rek yàlla moo wàcce mbas mi. yàlla na ko yëkkatiwaat. amiin yaa rabbal alamin. moom rek a ci man dara. amiin amiin. Ah, li ngeen di def nii ak lu ko nuróol lépp. Mhm. xeetu fegu la. ak maytu. ak gàttandu loo xamante ni ëllëg xamuñu kat bu mbir mi yokk woon nan lay mel ci ñi ñëw doole. dëgg la. ñu ni nan jéem a dajale luñ jàppaleen tey ñëpp dëgg la kon ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla na yàlla fay leen amin yéen ñu fa teewal surtout nag imam Baas dëgg ñu ngi bëgg ci moom lool ci ab taxawaayam ak ñeneen ñi ne ci palateau bi maa ngi seen léegi sama eh, jaam président Pédar Sarr waaw yéen ñëpp daal ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla fay encore une fois mention spéciale à imam Ibrahima Bass jërëjëf waa imam ñu koy ñaan de ci direct eh? bi nii eh? moom na continuer plateau bi ba jeex imam waaw ñu nit ñi ngi lay ñaan bu ngoonee yow yow ngoon yaay ñëw inshallah imam annoncé nañ la ngoon annoncé nañ la annoncé nañ la ba pare am na lu ñu waxtaanoon <laughs> am na lu ñu waxtaanoon incha allah bul ko yàq ñu lay xaar ngoon incha allah rabbi. <laughs> waaye moom fees na place bi man na lépp moom baat. imaam waaye waaye ñun dañu la namm bëgg la gis léegi la ñuy dalal bu soobee yàlla. jërëjëf incha allah <laughs> waaw na yàlla def li gën incha allah. amiin jërëjëf jërëjëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërëjëf eh, macha allah. waaw imaam baal ma delloo Mariama plateau bi rek. ba ci continuer incha allah na yàlla fay ko moom itam ndaxte initiative bi daanaka moom bokk na ci ñi ko xalaat. Euh, ba mu waxee que président Moustapha. mu ne doxal leen rek yéen ndaw ñu loo leen dogal rek. dogal nañ ko ci la ñu waxtaan. depuis démb. Mm-hmm. tey tey tey daal mu ñëw macha allah. kon daal yàlla na yàlla dëgëral leen yàlla na yàlla jàppale leen. tey bu kenn la ñëwalee imaam yi ñëwal na imaam yëpp. Uh-huh. kenn ñëwalee coutume bi ñëwal na coutume bi yëpp. parce que wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ñu ñëpp ñun ànd nekk benn di xajandoo di dóorandoo xam ne ñu ñëpp ñoo bokk ñu lu ñu liggéey imam bi coutume bi ñëpp parce que ñoom ñoo war a mën a ànd pour defar dëkk bi loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax jërëjëf kon ma delloo antenne bi Mariama rek ba ci kanam ñu dellu si waat Mariama waaw kontaan nañ comme ni ma la waxee rek kontaan nañ ci ñi nga xamante ne rek ñëpp ñi ku bëgg a woote da ngay def 77 717 Kole Thiaw Ngaparou joxe na 20 000 francs Roxey Ndoye madame Mbengue 50 000 yi ñëw na Ndéla Ndoye 10 000 francs léegi Kole Thiaw maaleykum salaam. ñooy fii nuy nañ la. Mariama. waaw tour bi.

tam maa ngi lay nuyu bu baax sama doom. maa ngi lay fay bu baax yaay booy. kontaan naa si liggéey bi. merci beaucoup. yal na leen yàlla jàppale. amiin amiin. yàlla bàyyi leen fi ba sa kanam. amiin kontaan naa trop si béjaay bi. Mhm. vraiment lu rafet la. Mhm. parce mbir mi ñun ñëpp ko bokk. Mhm. comme ñi si plateau bi niñ ko waxee nag. yëpp démb ba tey dama amul jot. mais maa ngi suivre affaire bi yëpp ba ma woowee. dëgg la. mais nag lii ñu wax lépp lépp lépp lépp na. ngir mhm. la boo xamante ne bii ñun ñëpp ko war a xeex. dëgg la ñun ñëpp la concerné. Mhm. donc bu ñeneen di jàpp. Mhm. ñun waratuñu xaar dara. déedéet. suñu dërëm. xeebuñu seen xeebuñu dara. surtout ñi xamante ne ñi ñooy waa dëkk bi. maa ngi leen di oo sama message aussi muy mhm. mbir mhm. ku nekk xam na ne tuuru njare bu jotee mhm. Ablaye mu ngi ko commencé ci vingt mille francs di ko teg sama loxo bi ba ñu demee ba kay dem di ko joxe ba jot ay cinq cent mille kase bu ne ay million bu koy joxe di ko teg ci sërëm bi ku ma koy yàqul dara moom tam du def mukk loo xamante ne lii yëguma ko mhm. xaalis bépp sama loxo la koy lañ koy teg mhm. maa koy distribuer dëkk bi yëpp góor na yokk mhm. donc maa ngi lancé message aussi waa Yoff gépp xeebuñu dara sosuñu kenn dara tam lu waaye am rek yónneel fii bu kenn jomlu dara loo am dërëm bi ñaar dërëm téeméer fukki dërëm comme noonu ñu koy defee tuuru jere toujours xaalis bi dama koy recevoir. Mhm. versement yi ya xam naa ne lu am solo la. Mhm. bu duggee fi yaakaar naa ne dina mën a am lu mu faj. Mhm. maa ngi lancé nag message yi xamante ne ñoom laa ko daa teg seen loxo yi waa quartier yi. noonu ñu ma gisee woon topp dëkk bi di ko def. nañu jox def loolu. dina am solo ci dëkk bi torop. dëgg la ngeen xam ne Ablaye moomu leen koy jox. ba muy yéeg ba di dem ba sa Marème Faye mm-hmm. jox na leen bët am na lu mu seent ci yéen mm-hmm. comme mbir mi nag ci kawam la dal te muy suñu doom mm-hmm. nañu jóg ñun ñëpp ñu tapp muy góor ak jigéen mag ak ndaw xeebuñu dara daara ñëpp ay seeyeer lu mu mun ta ci yoon lépp nañ tapp ñëpp mobilisé wu ñu jàppale suñu doom incha ñu xeex mbir mii naka nit ñi di xeexee ñu daan ko jële ko fi man nag maa ngi joxe sama participation incha allah dinaa joxe cent mille francs cent mille francs voilà d'accord loolu foo na maire Abindooy Abindooy responsable responsable waa daan aussi maa ngi leen di oo yéen ñëpp d'accord lu rek am nga numéro orange money bi euh, non mais dinaa la ko envoyé yow moom amul problème dinaa ko envoyé léegi d'accord naa ko envoyé. d'accord merci Mariam. merci beaucoup. merci maa ngi leen di nuyu yéen di am mbégte comme niñ ko waxee bu ñu woowee jigéen ñi rek daanaka ñëpp daanu nañ. Euh, comme ni ñu koy waxee dañuy defante góor ñi la ñu wax démb. Uh-huh. boo seetee plateau yi man maa fi nekk jigéen. liste bi boo ko xoolee jigéen ñee fi nekk. du ma ko nangu de. xanaa loolu neex na. du ko nangu de. siyaas man la àndal. ñi ma ni góor ñi sagal la àndal. Mariama. maa Mariama fi ne. Mariama. ji ah. góor ñi laa ni ñëw leen ngeen sagal ma maa Mariama ne ñoo bi te du ma nangu mu yóbbul ma ko. tante Mbule wàccee na fi. kon na góor ñëpp ñëw. tata Roxey Ndoy ñëw wàccee waat fi mère Abi ñëw wàccee fi. du ma ko nangu de góor ñi. Ah. ñëw leen papa da nee na góor ñee koy joxe. ah góor ñee sagal ma sama papa jigéen ñi la àndal. donc euh, gis ngeen niñ fi amee gan muy saltige Mamadou Mbengue vraiment muy nekk conseiller Yoff TV moom tam lépp loo xamante ne gis na Yoff TV di ko def rek da si dugal loxoom euh, tonton papa Kara. jërëjëf euh, ñu ngi dalal saltige. Mhm. am ne partenaire bu am solo la ci maire yi bi ci commune bi. am na ku nekk ci ligne bi allo salaamaaleykum. allo

di ko gërëm di ko sant ci taxawaayam si yow man maay borom bu ret bi moom xam na man xam naa yàlla xam na day sama waay di hmm. di di remercier Kara di vice président Faye Yob ba pare di directeur de cabinet maire maire taxawaayam di remercier Père moom xam naa ne bu déggee baat bi xam na dama ko dégg sànq muy wax

teg ko ci lii yow gépp gi ci seen bopp loolu mooy solution bi maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim merci beaucoup di am mbégte rek jaraaf saltige ñu lay bàyyi nga nuyoo ñi ñuy seetaan asalaamaaleykum mbokku Yoff mbokku Yoff Mbollo TV ñu ngi jiital si nuyoo bi kilifa Yoff yëpp ma yëg ci ñu ngi nuyu kilifa ci bi imam ratib ak ndombu tànk ak képp ku yor di nuyu directeur de camé jaar si moom nuyu le maire Abdoulaye Diouf ak conseil municipal bi yépp ñaan yàlla yàlla ñu yàlla jàppale si li di nuyu sama imam Ibrahima mm-hmm. Baas mu teewal fi imam ratib di sunu di naw taxaway yi muy def yépp nuyu sama président père nuyu waa télévision bi yépp ah di ñaan yàlla yàlla nañu yàlla jàppale si di nga xam ne tàmbali nañ ko yàlla nañu si yàlla defal lu ëpp suñu jot si bàkk Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam ñu gis ne tout temps tonton ñu gis tout le temps yaa ngi nekk di dox si social vraiment mu nekk lu am solo naka nga gisee initiative bi ñu def ni avant tout non initiative bi lu rafet la

dafa am lu gané Senegal Sénégal am lu ko ci dal ci biir dal gi mu dal Sénégal yalla tombe mu sunu dom yoré santé muy affaireu feebar mbas mi nga xamné mo am loolu ñun doomu lebu yépp ñun waa yof ñëpp dañu wara taxaw ñaan ba paré parce que lii imaam wax na ko légui ñaan rek ko mëna jéxal yalla yàlla yalla daxal buñu jël gannaaw buñu jëlé matu way yi ñu wara mat jël yépp parce que àdduna ku fi nekk mom bu dara ñëwee da yàlla dafa wax nga jël matuwaay yi nga war a jël yëpp mm-hmm. li koy sottal nag si loxaam la ne mm-hmm. kon feebar bi yàlla ko yàlla jeexal si Sénégal mm-hmm. jeexal ko si àdduna bi yëpp war nga këpp initiative bi lu rafet la mais tonton yow comme ni ñuy waxee macha allah sa rôle dafa am important ci société bi ndax xaaroo événement di am tout le temps yaa ngi nekk di dox si social euh, lan moo waral loolu waaw xam nga boo nekkee si dëkk nekk fa ndaw yàlla dénk la fa ndoom bu tànk nga xool say wëyju ak say maam nañu daan taxawee si ku takk bu tànk loolu ku ñu takkal ndoom bu tànk pratiquement yoo fa ah, waroo nelaw waroo lekk waroo naan boo amee 1000 francs sax war nga ko jox nit ñi te xañ ko sa bopp loolu moo tax parce que damay wax ne ñii fi takk bu tànk yépp amul kenn ku fi gën sa morom lu waaye takk rek sa morom mën na ko takk kon bu ñu la ko takkalee yow tamit da nga war a delloo communauté bi li nga xam ne mooy moom la ñuy xaar si yow waaw ah, moo tax ñun depuis ñu takk bu tànk xaaruñu ku ñu sante ku ñu santewu dañu war def lu baax mm-hmm. parce que mag ñi fi seen tur des ñëpp bul foog ne juddoo tax bul foog ne bañ sa tolloo dañu doon taxaw communauté bi mm-hmm. moo tax fii ba buuf tey wal seen tur fu ñu waxee rek tuddaleen loolu am na ñu fi nekkandoon non té seen tour kenn tuddatu ko kon loolu ñu tamit dañu bëgg ñun en tant que saltige yof suñu tour des fi abadan bu ñu génnee àdduna desi, na yeex suñu tour des fi abadan moo tax ñuy jéem lu baax di jéem social di nangam na bi bi ngeen fa ñëwee wax naa ko man leen vraiment nit ñaa commencé di laaj ndimbal ken amul yàlla rek am ma wax njagay sax am na ñoo ne amul ko amul soxla dëgg ku ñu warul ndimbal mi amul ku ko soxlaw. dëgg la ñun soxla nañ ko peedar soxla nag ki soxla na waaye ndimbal moo gis dafa am ñu si gën a yey. dëgg la bu benn paquet suukar tegoo fi. Uh-huh. ñu xool ne imam Baas moo si gën a yey dañu war a yëkki jox ko. dëgg la sans état d'âme. noonu la war a demee. bu leneen ñëwee. Uh-huh. bu fekkee saltige moo si gën a ñu jox ko ko. ñu toppante ko noonu. loolu mm. bu ñu ko defee yàlla mën nañu dimbali. Uh-huh. mu bañ a am xëccoo bañ a am loolu laa leen di conseillé. Hmm. bu ma nañ xool rek mbengeen ka sa gën a yey ñu jox ko laayeen ka sa gën a yey cité nouvelle ka sa gën a yey ñu jox ko tout mu bañ a am état d'âme bañ am xëccoo bañ a wax am wax loolu daal lañuy ñuy conseil di ñaan dëkk bi yàlla nañu yàlla defal jàmm gis nga feebar baa ngi ñëw ñëpp nekk benn ñëpp ngi nekk benn ku nekk di wax lu baax ku nekk di def lu baax jëmale sa morom te pourtant dama koy wax bu pénc mi jotee ñu war a toog wax waxu pénc mi rek jafe-jafe am loolu fu ma toog dama koy wax bu dëj amee ñun ñëpp ñu daje jaalante kottante ku ne jaal sa morom te bu ñu tegee pénc mi rek jafe-jafe am loolu warul am ay nit ñu bokk benn maam ay benn maam benn ndey bokkante war na nañoo mën a ku nekk ku ne am na defoo nag amul nit ku amul defoo ku ne nag sa defoo dañ koy baalante rek te pénc mi bu jotee ñu teg ko

waxuma suis Diop en tant que conseil municipal en tant que collaborateur du ministre Ablaye Diop mais en tant que sportif. parce que dama lancer un appel à toutes les ASC pour que ñu ñëw une sensibilisation ndax euh, mbir mi xam euh, virus mais dañ vecteurs nit ñi des moteurs si nit ñi lay jaar pour mën a dugg si nit ñi donc ñun ñi nga xam ne nii ay acteurs lañ donc nekk si mouvement associatif bi. dama bëgg bu baax ñun ñëpp ñu jox. muy mhm. nawetaan yaakaar naa le président Abdou war na ñëw war na dugg. dëgg la. Euh, ñeneen ñëpp ku nekk vraiment jàpp si liggéey bi. Mhm. maa ngi nuyu ñi nga toogal xaw ma ñan la. Mhm. vraiment tey xaw ma ñan ñoo nekk si plateau bi.

Mm. vraiment di jaar si euh, directeur général bi SIAS. Mm-hmm. di ko féliciter di ko encourager parce que SIAS moom man damay wax ne nekkam si Yoff am na njariñ. Mm-hmm. lépp luy doxal dëkk bi rek SIAS si lay taxaw moom lay def. Mm-hmm. may may may profité si occasion bi aussi pour féliciter waa mairie. parce que ñoom aussi def nañ si liggéey bu am solo. depuis que mbir mi taxaw ba léegi. vraiment ñu ngi jàppale di jàppale daara yi. di jàppale population yi jaaral ko ci comité de gestion yi jaaral ko ci ñëpp. Mhm. may wax ne nag euh, jàppale walla taxaw du mag tey jii li nga xam ne ni lépp moom la ministère walla euh, gouvernement bi yëkkati. Mhm. bu ko dugalee ci nit ñi sax dina am ñoo xam ne ni kii mais dañuy jàpp ne ku am rek am na pour ñeneen ñi. Mhm. donc kuñ jàppale dañ ko jàppale pour ñëpp. donc mais quand même nit ñi nañ jàpp ne maire bi taxawaayam rafet na vraiment may profiter ci occasion. de féliciter d'encourager le maire Abdoulaye Moussar mais par ricochet son premier adjoint qui gère la mairie Mouy Abdou Nar à tout le conseil municipal Et amna yakarne Inch'Allah,

lépp je pense que lu am solo la. Mhm. Euh, mais ma ngi fàttali rek saltige mi ma ko wax au départ suñu partenaire la. Mhm. lépp nga euh, commune bi mhm. social et environnement. moom ci lu bénévolement pour comme saltige comme ni ma la ko waxee ñu ngi koy dalal moom bi ñu egsi nag. Mhm. ak ñu nuyu mhm. ah loolu for na 5000 baa ngi nii. saltige Mamadou Mbengue 5000 donc saltige indi na 5000 nuyu waale ñu ko. Mhm. te xam naa ne. Euh, am na ay partenaires moom si boppam. ay nit ay wëllëreem. yoo xamante ne dana jokkoog ñoom ñoom aussi nekk ay kilifa ci dëkk bi. ñaax leen pour indi seen participation ci mbir mi nga xamante ne moom la dox.

aar ah, di leen ñaanal yàlla mm-hmm. ah, may nuyu particulièrement saltige Mamadou Mbengue mm-hmm. ah, di la wax dundal guddal fan mm-hmm. di ñaanal staff maire bi liggéey bi rafet na di ñaanal siyaas yàlla na ko yàlla defal jàmm amin Mariama yàlla may la wér nga mën a xëy saa su ne amin saltige Mamadou Mbengue maa ngi lay gërëm sama sama sama mouvement yi ma am mouvement make up yi ma am yépp bu ma fëggee buntam da koy ubbi ba mu yaatu mhm. jàppale ni ci zaahir ci baatin mhm. ngay ngi maa ngi lay gërëm di la ñaanal mhm. dañuy wax ne na ci xëcce na ci xol dee ci gën li ngay def ñu ngi koy gis vraiment ñu ngi lay ñaanal man day du ma waxal nit lu ma defaluñ man Adji Diagne lu ma waxee nit mu mu ma defalul mhm. te ruus na maa wax lu ma xamul mhm. kon damay ñaan yàlla muy borom jàmm te ku mu ñaanal jàmm nga am jàmm te ku mu jox yan dina la saxañal ab séy mhm. dal na la yàlla jox séy dal na la yàlla teg loxo ci barki Seydina Muhammad amiin ah, nga ñaanalal ma nag télé boobu dañ bëgg ma yokk saa su jigéen bu jàddu merci beaucoup merci wax waxaat du bari wax wax li nekk ci dëkk bi la Papa Kara moomu di nit ku sincère lu muy liggéey ci mairie bi lu dëggu lay doon maanaam du liggéey lu amul këyit du def loo xamante ne amul amul nit mën a di ci def fukki sàkk ah may wax saltige Mamadou Mbaye nga xam naa yaa ngi dégg sama mouvement bi dama extégul foofu ci yow président jeune waaw mu mel ni euh, ligne bi dagg na ñuy wax ne Assane Ndoye itam dugal na si Orange ne bi 10 000 francs Assane dix 10 000 francs waaw Mariama waa Ndioufène mosquée Ndioufène ñëw nañ fi Pape Assane Sylla euh, di nga délégué quartier bu Ndioufène ñëw na fi ci turu mosquée Ndioufène indi fi fukki junni ni ñoom ñoo ko participé ci mbir mi Euh, Babacar am joxal ma Mariama mu jox papa euh, Pedar mu compté cinquante mille mosquée Ndioufène kon ñooñu dañ leen di sant itam ci turu euh, imam Ngati juuf ndaxte démb rek mu may wax lu mel nii ñu ñoom seen jàkk récolté nañ somme bi muy wane ne ñoom tam nal dañ ko démb mhm. bu ko defee nag am na solo yàlla na yàlla fay ko moom teewu fi waaye bëri na lu ñuy liggéey loo xamante ni imam ratib da koy jaaral ci moom mu wàcc ci ñun mhm. am na ku nekk si ligne bi salaam Mariama waaw man la maa ngi nii dugal naa ko si euh, kii bi orange madame mais man comme sama portable privé la. waaw. bu ñëwee foofu nga xam ne man la. orange money bu fan. maa ngi nii ah, sama buntu kër fii. day ban orange ban numéro orange money. ah. ban numéro ban ban numéro nga ko dugal. ci numéro bi ma joxoon ci ci bi. bi déedéet déedéet soixante boobu mooy 77. 808 808. jëlal 77. 808. jël 77 808. waaw 800 808. waaw 66. 66. 29. waaw xaaral moom mu woo si numéro boobu léegi. voilà 808 66 29. 29 waaw 808 66 29 numéro boobu nga koy dugal. d'accord eh, dinañ la des signe. waaw. mu ngi may oo léegi nee envoyé na cinquante bool yu raxasu kan mais mais tata may mu desi laa waaw woote na fi léegi nii waaw dana envoyé na fa tata cinquante boolu raxasu yi laaj cinquante boolu raxasu waaw yóbbu na ko mairie d'accord waaw d'accord mhm. d'accord numéro mu ngi si siyaas waaw d'accord d'accord 77 808 66 29. waaw Mariama waaw 808 66 29. d'accord Mariama. <laughs> d'accord maman. waaw waaw dañuy. waaw waaw dañuy dañuy jël waaw may dañuy jël bi ñu jox ko mu nekk waa mosquée bu Njuufeen uh-huh. maire abindoo bi tamit ñëw na muy cent mille francs waaw waaw bu ñu ñëwee ci xam ne mooy papédar suñu tonton bi woon léegi suñu papa bi mu wax lu am solo mu ne am na cinquante millions yoo xamante ne yoof moo ko moom est-ce que loolu lu nekk la euh, waaw lu nekk la. Mhm. lan la ñuy xaar pour génne ko. déet non loolu du loo xamante ne noonu lañ koy médiatiser. Mhm. xam nga yëfi yoof yëfi néeg la parce que yëfi yoof du lépp lu ñuy jël di ko waxe noonu. Mhm. Euh, damay jéggalu si waxin wi. parce que moo ko xawee moo ko déggee sax xaw na ma tiggee tuuti. lu tax tam ñu souligné ko parce liñ ko souligné moo tax. waaw moo tax may wax loolu. parce que dafa am loo xamante ne bu nekkee mbirum yoof yoo fay dugg yoo fay daje yoo fay waxtaan boo ci amee xalaat te bokk ca ndaje ma dangay dem ca ndaje ma nga wax ko ca xalaat mm-hmm. mais yëpp yoof loo xamante ne dañu koy génne noonu rek wax ko noonu mm-hmm. su da ngay jaxase xelu ñëpp mm-hmm. loolu moo tax ma wax ni moom incha allah ñu gis na tamit euh, pourquoi ñu war a xaar par exemple ba événement am ñu door a jàppale lu tax même bu dul événement doo gis populaire ku nekk maanaam bon volonté yi di jàppalante seen biir pourtant nit ñi ñu ngi jàppalante c'est que xam nga jàppalante def di loo xamante ne du lu ñuy wane euh, di xëy jékki-jékki ñun nii si biir Fara Yoff nii ñu jékki-jékki seetlu ni kër kilifa nangam doy na waar fi ñu toll nii mm-hmm. ñu jox autorisation trésorier naka na nga yóbbu foofu ay vivre te boo koy yóbbu na koy yóbbu si waxtu boo xamante ne du am ay benn kii du ci xeej mm-hmm. bu sa moom dana dem fay ko ci boutique bi jël bon bi

mooy nañu bàyyi di wax xale yi ñun nañu responsabiliser suñuy bopp ñun kilifa yi xale yi dañ leen jur kilifa bu nekk na téye ak njabootam bu ku nekk veillé si sa njaboot toog sa kër xool ne ma sàmba newu fi ana ma demba ana nàngam ñëpp daju si kër gi nga toog ak ñoom bokk ak ñoom kër gi su boobaa kenn du gis kenn si mbedd donc responsabilité bi jiitu ñun ñi nga xamante ne ñoo yor njaboot fa la jiitoo mhm. nañu naaf suñu njaboot waxtaan ak suñu njaboot parce que léegi xew-xew bi mu amee ku si nekk war nga mën a réunir sa njaboot mhm. ñu daju sa nga waxtaan ak ñoom si li nga xamante ne moo am si jamono bi mhm. xamal leen ne lii ñëw mën na demee nii ak nii ak nële mais bu ñu fa tolloo yéen ñëpp na ngeen defale nii ak nii ak nële mhm. ku si nekk am na noo xamante ne da nga ko war a aare sa njaboot parce que euh, nit sëy na si néegu sëyam ba ba yàlla jël ko te amul bant yalla jox ko ay bant be bant yi yalla jox du bu ko denk la dafa am numu ko wara yore te lolou da nga bu ëllëgee da nga wara lay wax sa borom donc ñun ñëpp ku ci nekk da nga am no wara a sa jamono nag mo dox doxin bo xamantene bi ni mag ñi daan doxale diko ko yore seen kër nit ñi tuñu ko ay kër te nit ñi ne foog ñu delloo suñu xel gannaaw nag ñu suñuy bàyyi yore woon ñu fexe nañu yore noonu suñuy njaboot mm-hmm. parce que bu njëkk benn kilifa rek mooy wax te bu waxee kàddoom rek yoof gëpp appliqué li nga xamante ne moom la mhm. léegi bu nit waxee sax ñu naan ah, loolu nag moo jaaduwul. effectivement bu ñu topp ndëg extérieur ba wàcc li nga xamante ne ñoo ko moom. Mhm. parce que ñun lëbu ay noobal lañu. Mhm. noobal googu ñu naan lëbu day bañ ko ko yeb. daf jikko boobu dafa war a feeñ si lépp loo xamante ne moom la ñuy doxal. waruñu toog ba ndëgër ni si muy muy naxsaay. donc loolu lu ñu war a téye la lu ñu war a fonk la. waaw Mariama bala nga laaj sando saltige dafa am leen rek lu ma bëgg laaj Pape Pedre mhm. comme que ni mu tuddee cinquante millions yi comme que population te ça sonne mal am na ñoom te ni seen dégg-dégg dafa tuuti te bu ñu fi jógee te leeralu ko te lii di occasion pour mu leeral pour ñi nga xamante ni dégg nañ cinquante millions te xamuñu nu mu demee mhm. bala ñu cee nekk di ci wax loo nga xamante ni nii wóoru leen te xamuñ ci dara moom mu leeral ko fii ci ñi nga xamante ne ñu ngi seetaan te dégg nañ cinquante millions xamuñu ñu est ce que du occasion mu leral ko ba ñuy bëgg a wax xam li ñuy wax. effectivement. waaw xam nga leral bi moy li ma expliquer tout à l'heure dama wax am na ku nekk ci ligne bi. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salam man nga ñu baal nga wàññi sa télé. waaw merci beaucoup. allo salam maaleykum salaam. Mariama salam va. waaw ça va bien merci tour bi nan la maa ngi lay tonton Jaraaf Mbengue. tonton ça va ça va bien merci. ça va maa ngi leen di nuyu bu baax. Mm-hmm. di rafetlu plateau yi. Mm-hmm. waaw di di di di nuyu Tedda président Et mm-hmm. eh, di nuyu Mbengue. ah di nuyu ñoom Imam Bass. di nuyu bu baax. ah di directeur waaw li may li may li may di en bu ma leen bu ma leen remercier félicité leen bu pare. Mhm. waaw li ma bëggee rek mooy ñu ñuy dem toujours ci sens bi. Mhm. sens bi mooy téléthon spécial. mais dama bëgg am na yoo xam ne buñ ciy xale dugg rek waaw dafa ñuy xale tardel fi ñu jëm. Mhm. comme dëkk dëkk bi nag fi mu toll nii. ku si nekk lii xew ku nekk yëg na ko. te téléthon bi ñu réalisé nii. def naa li ñu ci bëgg rek mooy Yoff bu ne mhm. li la yàlla may lu mu tuuti tuuti mhm. nga contribuer ko mhm. li nga xam ne moom lañ ci dëgmal pour askan wi waaw ñu mën ko matale ginnaaw bu matulee sax waaw ñuy yëg ne ne yàlla def na si loxoom bu baax incha allah merci parce que am na débat yoo xam ne waaw dafay indi tardement tuuti nañu aller vers l'essentiel

xam nga ndom bu tànk moom boo xisee ba takk ko ci dëkk rek moom dee nga mhm. parce que ku sa bët xonq mhm. da nga naan ma dem kër saltige wala ma dem kër président wala ma dem kër DC ku fa takk ndomb tànk noonu la sa kër di demee mhm. day am loo xam ne social la social la rek mënoo dimbali nit ki ba pare toppaan mbedd mi naan Mariama jaar na fi maa ko jox saako ceeb xam nga loolu mënul ne moo tax dama la wax ne communauté lébu loolu seen baax la depuis suñuy loolu day am

dëgg la parce que suñu woy wëyjur daf ñu waxoon doom mhm. Yaasin Ndooy dafa ñu wax lu am solo ñëw seet suñu bu bàyyi njeñ mhm. mu ne doom góor góorlu leen yi mhm. ngeen seen bàyyi bu fi bàyyiwul ay étage dimbali ay mbokkam dëgg la te bu ko tabaxoon buy dee dina leen bàyyeex ku nekk taaxam ko waaye kenn ëpp ko woon alal ñu mu si toll yéen ñu leen di interpeller ni ngeen góor góorgóorlu parce que seen bàyyi tegoon tàngam même bu ngeen ko mënul na ngeen ko def dëgg la loolu la nekk

def appel am na ñoo xam ne tey mën nañoo génne cinquante millions def ko si yow. Mm. am na yow ñu jeex. dëgg la ñu ngi leen di wax ne nañu seet yàlla xam ne jamono ji dencal ëllëg wóorul. dëgg la parce boo dencee say compte ba mu fees suba yàlla jël sa bakket xamoo alal jooju nañ lañ koy utiliser. dëgg la kon ñu ngi leen di wax yaa ma li nga wax dëgg la bari nañu ne yow tey jii mën nañoo jënd 10 am na ku nekk si ligne bi salaamaaleykum. maaleykum salaam. Mhm. ñoo ngi lay euh, nuyu Papa foofu foofu Yoff Mbollo waaw. waaw dama bëggoon euh, intervenir. tur la. Euh, Sidi Diouf. tur bi. Sidi Diouf. d'accord ñoo ngi lay déglu bu baax. waaw maa ngi nuyu ñëpp nuyu waa Yoff. Mhm. di bëgg joxe sama contribution balaay loolu. Mhm. dama bëggoon def témoignage ci ñett ñooñu foofu toog ci plateau bi. parce que ñoo ñëpp xam naa seen euh, li ñuy def ci biir yoof mhm. seen dëggu ak seen bëggub yoof man mhm. mi wax nag euh, je suis bien placé te nekk naa les pour wax perdre Sarr pour wax ci mhm. euh, sama mag di kara waaye dama leen doon ñaan ci seen permission rek ñu bàyyi ma def benn témoignage ci saltige moomu du mbeng moomu parce que dafa nekk koo xam ne nekk nañu pendant ñeenti at di liggéey ci mbirum jàngale mi yoof may wax ne xaaru ci kenn. Mhm. dem nañ ba boo xoolee sax am na yu ñu def ci école bi yoo xam ne moom boobu. Mhm. damay wax ne carrément dafa jël lekketal dugg ci marché yi di yelwaan pour ñu tabax ay classe biir la kon kooku dafa nekk koo xam ne gis naa ko ci côté boobu noonu. Mhm. dem nañ ba nga xam ne suñu génnee ci biir Dakar sax bokk nañ ci association parents d'élèves moom la ñu jox commission médiation bi nga xam ne moo nekk ci biir yees almadi yëpp. donc nekk na koo xam ne daal euh, jàmbaar la li ñuy def. Mhm. man nag euh, dinaa joxe une euh, modeste contribution de dix mille francs ci euh, pour coronavirus bi may wax rek ne dama doon lancer benn appel pour parents d'élèves yi xale yaa ci kër yi nañ téye xale yi ci kër yi waaye bu ñu leen téye rek ci kër yi yem ci mais nañ leen tàggat pour ñu continuer seen njàng mi def ay révision suñ amee ñu leen mën a dimbale ci biir kër yi dimbale xale yi man daal appel boobu laa doon lancer Euh, pour euh, vraiment parents d'élèves yi jàpp ci loolu daal ak euh, mesures yi nga xam ne mooy mesure protection yi dañ ko jël ñun ñëpp au sérieux parce que loolu rek la ñu mën a def pour mën a génn ci situation bi nga xam ne mooy nekk. incha allah feebar bi bu kenn wax ne existé wul existé na réellement mais mun nañu ko xeex pour xeex ko nag ñëpp ñoo ci war a béy seen waar muy parents yi muy xale yi muy mag ñi muy ndaw ñi ñëpp ku ci nekk war nga ci dugal sa loxo. donc euh, comme aussi dama bokk ci yeneen euh, entité maa ngi lancé ASC yi nga xam ne mun ci biir Yoff je sais que joxe nañ contribution à travers le mouvement euh, nawetaan par ODCAV bu Dakar mhm. mais dafa am loo xam ne aussi ñun ñoo ko moom biir Yoff may demandé ASC ku ci nekk manifester wu vraiment pour xool loo mun a contribuer ci li nga xam ne moo nekk ci biir li nga xam ne moom la waaye Yoff mbooloo ci biir oote ak waa mairie bu Yoff donc maa ngi gërëm ñëpp di jéggalu j'ai été un peu long wante it euh, damay wax ne madame aussi dafa bëggoon a participer pour joxe moom it euh, sa modeste contribution ci euh, lutte bi nga xam ne moom la ñu def ci coronavirus bi. Mhm. ma faat leen ko s'il vous plaît ngeen jéggal ma rek j'ai été un peu long. ñuy rafetlu loolu vraiment. asalaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. Mbooloo TV yow. waa ñu ngi lay dégg bu baax. man la madame Diouf ak Sanji. d' accord. concert au niveau de la commune. Mm-hmm. may tàmbali na di kilifa yooyu toog ci plateau bi. Mm-hmm. di leen sargal di jox kenn ku nekk wàccuwaayam. Mm-hmm. di rappel aussi initiative bi. ndax li ñu wax ñun loolu la ñu baaxoo. ñun waa Yoff ndax euh, Yoff dafa yaatu mu ngi tàmbalee terminal ba jàmm laaj. kon ñu ngi rafetlu lii. di leen ñaanal yàlla seen taxawaay yàgg. di remercier aussi monsieur le maire. di nuyu tim Papa Karaf mom fi togal wa mairie di nuyu aussi saltige momadou Mbeng moomu tok non ak kilifa yi tok fofu yëpp man tamit dina participer à hauteur de cinq mille francs mu nek re une modeste 5000 francs d'accord tur bi mu nek re une modeste contribution wa madame Diouf mu nek re une modeste contribution te ñu ñaan yàlla mbas ñu yàlla wàcc ci réew mi ñun jullit ñaar la ñam yàlla nañ ko fi yàlla génneel te yàlla bu mu fi duggati di gën a ñaaxaan ñi aussi pour ñu respecté tamit nag les règles d'hygiène mm-hmm. parce que sunu santé moo ci dépendre mm-hmm. balaa may gën a gudd comme temps bi dafa kii tuuti mm-hmm. maa ngi jégg loolu rek laa doon wax daal di sant ñëpp nag di nuyu ñëpp di sargal ñëpp merci beaucoup waa kay merci beaucoup merci beaucoup euh, xam naa rek temps bi demal demal waaw waaw Mariama comme ki dugg sànq li wax ci li ma laaj tonton ñoom ay père de famille lañ te te seen njaboot dañuy dox ci mbedd mi moom bu waaw ñu jël ki ci ligne bi allo. allo. salaam. aleykum salaam. xam naa ko waaw kooku daw na ba pare li si des bariwul xam naa rek bu ñu mënee teel téléphone bi ba après midi bi. mu ngoog bu ko defee rek ñu pare. te seen njaboot dañuy dox ci mbedd mi xam nga bu kii bu duggee wax cinquante millions te ñoom ñuy ay kilifa ñuy dégg écho yi di dem ñu naan cinquante millions te xamuñu nu cinquante millions cinquante millions seen deru njaboot yi du neex ci seen xol. Mm-hmm. même buñ ko waxul seen wayjur kon loolu tax ma ne ko pour est-ce que du jaadu ñuy déglu ñu xam nu cinquante millions cinquante millions ba bu ku ciy wax nga xam li ngay wax parce que dë dëkku Lebu lañ ne. Mhm. foofu laa waxee. d'accord d'accord dafa am loo ciy teg papa. Hmm. loo ciy teg li ma euh, a wax solidarité bi nga xamante ne moom nga wax ne. effectivement dañuy xaar événement yu mel ni ñu soo def loolu euh, damay fàttali ne rek euh, comme maire yi maire yi dafa am rôle social. Hmm. boo xamante ne yàlla dafa def sax Abdoulaye Diouf Sarr bi fa benn bureau boo xamante ne bi loolu rek mooy liggéeyam mm-hmm. jàppale nit ñi ci wàllu santé jàppale nit ñi ci wàllu social dénk ko un homme d'expérience muy tonton Aziz Ndoye mm-hmm. ñun musuñu mënuñu xëy benn bés boo xamante ne nit génnewul ci hôpital bi ñëw indil ñu ordonnance mënuñu mm-hmm. xëy benn bés boo xamante ne nit amul soxla ci këram ñëw indil ñu

ñi am leneen na leen joxe maire yi am dara def enveloppe joxe famille yi xeet yi ñëpp dañuy joxe mhm. donc solidarité bi mu ngi fi seulement bii cas spécial situation spéciale nag comme ni ma ko waxoon sànq sànq intervention spéciale mooy di waral lii mais bu doon loo xamante ne normal la dañ koy continuer rek comme ni ñu ko daan defee dara duñu si fekk. waaw loolu vraiment c'est naturel. Mhm. ci lébu yi c'est naturel ci yow. merci beaucoup ñuy wax rek ne ki nga xamné moy mooy mi fi génnoon sànq Rokhaya ge joxe na 20 francs par Orange monnaie xamna rek Pape krax lan moy sa dernier mot parce que daanaka 13 heures jotna na. alors suma dernier mot moy d'abord damay remercier ñep ñi nga xamantene ne ñu bokkal plateau bi la muy jaraaf mi fi jóge léegi muy saltige muy euh, président Peter sar muy imam ak yéen ñi nga xamantene yene euh, yof mbolo Yoff Mbollo TV.

d'accord parce que Yalla dafa def ñu ko ñëpp waxé mom la mbir mi gën concerné donc ñun aussi dañ am devoir dañ am euh, responsabilité jàppale ko ci loolu donc loolu rek ma leen tax a jóg ngeen di remercier encore une fois au nom du maire ngeen remercier ci au nom de la population de Yoff remercier au nom de la commune de Yoff merci beaucoup Papa Pedre lan ngay tàggatoo. dolli rek di gërëm nit ñi di sant ñëpp. Mm-hmm. di sant waa Yoff bu baax a baax a baax parce que appel yi nga xamante ne moom lañ fi def ak euh, répondant yi nga xamante ne moo am mbégte rek lañ si jëlee. Mm-hmm. parce que loo xamante ne dañ ko doon xaar si ñoom. Mm-hmm. yàlla dimbali nañu ba ñoom uyu nañu si kàddu googu. ñu di leen si sant di leen gërëm. di profiter si occasion bi nga xamante ne moom la ñu nekk nii tey di ñaan suñu autorité coutumière yi ñi nga xamante ne ñi ñoo. ñoo coiffé mbir mi mel ni euh, day ji réew El Hadj Babacar di président conseil des notables mel ni jaraaf seen liggéey di chef de village nu ñu mën a fexe ba ñu réunir tànk par rapport ak épidémie bi ñu réunir tànk ñu waxtaan si suñu biir mm-hmm. xool nan nañu mën a fexe ba dolli ay ñaan suñu doom mm-hmm. xool nan nañu war a mën a def def participation mm-hmm. parce loolu lu am solo la parce que mbir bu amee ci sa gox gox bi war na yëg boppam mhm. donc loolu may lancer message boobu ñooñu di leen ko lancer te du tere danaa dem seeti leen pour wàll woowu ñu béy si li nga xamante ne moom la ñu am mhm. di gërëm imam bu baax ci participation am ak toogaayam parce que vraiment toogaayam stabilisé na beaucoup de choses mhm. parce que bu waxee rek vraiment ak ñu ñi seen xel day delluwaat si suñu borom ku su nekk xam ni lii mooy la moo la war et puis di ko bu ñu weesoo lii nga xamante ne mooy lii ñuy liggéey nii muy téléthon bi euh, émission bu mel noonu dafa war a am ci télé bu ne bu imam baas bi loolu lu am solo mhm. waaw ma di leen remercier bu baax di remercier waa télé bi euh, di leen xamal ni Yoff daal bëgg na si liggéey bi nga xamante ne moom ngeen di def mhm. du ñu du ñu noppi di ko wax parce que euh, lépp loo xamante ne activité dëkk bi la doo leen xaar sax ku leen ne nangam yéen si jiitu di ko liggéey ñu di leen gërëm bu baax di ñaan comme ni leen ko Ousmane Sylla ñaanal la dem mm-hmm. yàlla na dem dépassé télévision yi nekk mu nekk télévision boo xamante ne bi day couvrir réew mi yëpp incha allah ñaanal loolu amiin vraiment euh, tonton lan ngay euh, tàggatoo li ñëpp wax rek ci laaj euh, mu di teewal mbir bi nga xam ne kuy jàppale moom lay jàppale. dëgg la sa bopp sa nga jàppale. parce que doom la bu yëngu ci Sénégal. dëgg la DG teewal ko fi vraiment remercier ñi nga xam ne participé nañ ci joxe nañ seen seen lu mu tuuti tuuti yàlla leen yàlla yokk. te jàppale leen. di remercier imam remercier Ndiagay sa remercier yokk mbooloo kii bi. ñaanal leen yàlla yàlla télévision yàlla ci yàlla yëpp. amiin merci defal leen ko ah am nañ suñu ay wu ay kilifa léegi bi may ñëw laay jox ko grand sëriñ de Dakar. attention say mbokk ñu ngi laaj ndimbal. Mm-hmm. dimbali sax njaboot. Mm-hmm. mu ne ma yegg na si man sax waxal ñaat laay def ma ne ëpp def man baaxoo ma seetal rek loo man ba demee da nga ma ko yónnee ñu dem télévision ñu jox ko yow wane ne. jàppale ko liggéey. incha allah ak yeneen kilifa yeneen kilifa. ñu mhm. wax rek ne xam naa fekk suba fi kenn du moo tax. Mhm. peut dina ñëw. Mhm. ñu ne suñu dañu ñëw joxe cinq mille francs symboliquement. Euh, peut-être fekk suba gannaaw suba dina am leneen lu si doon. incha allah pour ñu wax lépp ñaan yàlla defal ñu jàmm si loolu. surtout Sénégal tey ñu ñu góorgóorlu rek tey ñu defal suñu dëkk. gën a jàppale. loolu rek mhm. tey jii bu ma toj la woon nii dama ciy wax de loolu foo mu wax mhm. il faut ñu jéggalante dëgg la ah, loolu foo mu am dëgg la ku ne am na loo yàq am na loo defar koo ne yàq na rek boo dawalaatee sa bët bi nga ne defar na naa mhm. dëgg la kon loolu yëpp dañ si war a gëmma tey ci essentiel mooy sauver dëkk la dëgg la sinon suñuy bàyyeex suñuy maam dinañ ñu gën a bon dëgg la parce que bi ñu yenoo dëkk bi demeewul nii dëgg la kon ñun buñ ko yennoo dëkk bi bëgg a jeng hmm. ah, loolu nag ñu ngi ñaan ku nekk delloo si xel dajale si essentiel hmm. jumaa bi ñu waxtaan ak suñu xool suñu seen dëkk dëgg la ñaanal ñëpp jàpp ñaan yàlla Ablaye yàlla defal de la république amiin defal ko coutume bi defal ko ñëpp ñëpp ñëpp ku si participer lu mu tuuti tuuti yàlla na yàlla jàppale mhm. joxe bi nag nañ xool ne ki gën a priorité rek la ñuy jox uh-huh. parce wax na ko léegi mënoo kër gu ne nga dugal fam ndimbal mhm. waaye dañu jàpp ne rek ku ñu jox rek xamal ne jox nañ mhm. dëgg la ku nekk déggee noonu rek doo am jafe-jafe doo wër sanga ci gala la gërëm ñëpp ñaanal ñëpp yoof yàlla na fi yàlla def jàmm defal ko xalifa bi Baye Ablaye mhm. defal ko coutume bi defal ko imam bi defal ko ñëpp

808 66 29 77 808 66 29 bu ko defee rek ngeen daal di dugal euh, li ngeen di dugal ci Orange Money bi numéro serveur bi nekk 77 717 23 59 xam naa fekkoon bu ñu ñëwee dinañ leen wax li nga xamante ne moom lañ am ci suba di remercier ñi nga xamante ne ñoo toog ci plateau bi yëpp à ce soir allah di jël euh, micro bi di ko sànni oustaz mu daal di tëjee foofu rek incha allah. ñu ngi jël pause incha allah ba 3 ñu ñëwaat incha allah ndek ngoon dinañu fi recevoir imam Séni Guèye fas yéene toog ak moom ñu waxtaan ci lépp lu jëm ci wàllu dimbalante ak lépp lu jëm ci wàllu téléton bi rek dañ ci waxtaan ak imam Séni Guèye doon di jaajëfal imam Baas bi nga xam te ne moom lañ fi toogaloon démb ba tey yàlla na ko yàlla defal jàmm defal ko njabootoon defal ko mboolem julit ñu teg suñu baaraam foofu rek ba 15 heures incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa